bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilaalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi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 di leen baalu àq di leen baal ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu defal ñu taw féex defal ñu sutura musal ñu ci mépp ndog ñoo ngi nuyu soppee almisbaax yi nekk ci biir réew mi soppee almisbaax yi nekk bitim réew di nuyu jàngkati alxuraan yi di nuyu jàngalekati alxuraan yi di nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi di leen bàyyi xel bu baax nag di bég lool ci bàyyi ngeen di bàyyi xel jotaay bi def ko muy seen wéttal waaye di wane itam cofeel gi nga xam ne am ngeen ko ci ndax cofeel lu am solo la man ngaa wax ne àdduna lépp euh, li nga xamante ne mi ngi fi dox te dox gi am njariñ sirru bi koy doxal te mooy mbóot mi koy doxal te bët mënu cee tegu mbóotum cofeel la euh, lu ne xew na ci àdduna waaye la ca gën a rëy cofeel xewal na ko te mën naa am bu fekkonte ne alalay daje nit ki door koo mën a def mënta dajale lu ko defal loolu donte sax mënoon na koo am te du mën a am résultat yu toll noonu bu doon doolee koy tax a am maanaam kàttan mën na caa def kàttan gu raw googu te du ko am waaye cofeel moom mën naa jur lu ne moo tax borom bi subxanahu wa taala sax bëgg ñu bëggu ko bëgg ñu bëgg ko nga xamante ne. booy gëm borom bi subhaanahu wa taala ak di ko jaamu maxaama mi ngay am daa bokk ca maxaama ya maxaama ma ca gën a rëy mooy cofeel gi ngay am sa digganteeg sa borom boo demee ba bëgg yàlla euh, bëgg gi da lay jural ragal yàlla gu baax ragal yàlla goo xam ne du bokk ni ngay ragale gaynde wala nga ragale ko lu lay lor waaye danga koy ragal ragalug li nga bëgg ndax nit dana bëgg dara ba ragal loolu ndax da koy ragal a ñàkk day ragal a def lu ko naqari day ragal a génn fu ko neexut noonu lañ koy waxee day ragal a génn fu ko neexut ndax cofeel cofeel mën na lu ne cofeel mën na lu ne léeg-léeg sax nit sopp nit ba du ko ñemee gis du ñemee gis kim sopp ndax sopp ko du ñemee gis kim sopp ndax sopp ko bu ko gisee sax du bëgg toogaay bi yàgg ndax du ko mën a muñ ndax sopp ko boo doon firi baat yi danga naan da koo ragal te fekk du ragal waaye cofee la toll noonu cofeer gu toll noonu wala gu ko gën a rëy moom la yàlla am ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam nga eh, créateur maanaam kuy fent ay yëf léeg day am loo xamante ne da koy fent waaye dootu ko mënati léeg-léeg mu dal ab woykat mu def benn eh, benn mbir moo xamante ne boo ko ne woon defaat ko ba àddunay tukki du ko mën a defaat mën naa def nag Euh, lu ko gën a xumb mën naa def lu ko gën a suufe mën naa def lu ko ëppi bagage waaye lu mel noona moom jomb na nam ko defee day mel ne ak tànd doon koo xam ne dootu mën a tee def lu mel noonu dootu mën a tee def lu mel noonu boroom xam yi wax sax ci màggaayu yonent yàlla muhammad alayhi salaam ak dayoom dañuy wax ne noonu la mel ci suñ borom suñ borom dootu defati lu ni mel xam naa kenn du wax ne yàlla mënut nangam waaye buñ ko doon misaal ci nit ab artiste dañ naan mooy mooy mooy oeuvre bi nga xamante ne bi mu ko defee dootu defati lu ni mel waaw bu bu fekkonte ne eh, sama mag ji may déglu ci jotaay bi Abdoulaye Fafana Seck moo ko doon wax dana xam nu mu koy tëggi baat bi ci tubaab ba nga xamante ne yéen ñi koy dégg day tollook ni ngeen koy waxee képp waaw day tollook moom yem ci kepp waaye ñun mënewuñ ko noonu liñ mën a wax daal ci làkk wii ñu nga xam ne ñun moom lañ nàmp te weneen wi mooy loo xamante ne nii ak tàndam lay doon nga xam ne bu ko defee dootu defati lu ni mel noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mel cofeel man na lu ne moo tax boo ko xoolee ba seetantal ko sax dangay gis ne bànneex bànneex wërta yàq cofeel bànneex wërta yàq cofeel hmm. bari na diggante yoo xam ne bànneex a ko yàq te mu ne buñ dawoon tuuti bànneex ba bëgg dëgg fay des maanaam cofeel dëgg a fay des hmm. bànneex warta yàq suñu diggante ak suñu borom relation bu sérieux bi ñu am ak moom warta yàq suñu diggante yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jokkaloo gu wér gi ñu am ak moom warta yàq suñuy diggante ndax boroom xam-xam yi dañuy wax ne bànneex yàggut bànneex yàggut gën ngaa yàggug bànneex ay minutes yu néew la ak bànneex bu mu mën a doon la ca def da nga caa nekk rek waaye la ca doon neex yëg nga ko ba noppi moo xam lekk la moo xam jëfandikukaay la gum mën a doon bànneex yàggut cofeel nag moom lu sax dàkk la waaye dafa metti waaw cofeel moom lu war a sax dàkk la waaye cofeel dafa metti dafa metti ndax li koy suuxat dafa rëy ci nit ba mel ni dereetam ndax ay effort lay def ndax téye ko lim bëgg lu mën a doon ay effort lay def ndax téye ko ko di sëgg di jëllale di muñ waaye di sacrifié wu ndax mën a sàmm cofeelu li nga xam ne moom la sopp moo xam digganteem ak boroomam la moo xam digganteem ak nit ñi la te ñaar yooyu rek lañuy war a bëgg bëgg gi am njariñ waaye dañ cee war a góor góorlu ba benn du ci yàq moroomam benn du ci yàq moroomam ndax bëgg yàlla te muy dëgg du yàq sa digganteeg nit ñi bëgg yàlla koo ca mënta àndal rek xamal ne kooka du koo war a àndal te nit nag daa war a tànn ay àndandoo daa war a tànn ñi nga xam ne ñoom la ñoom la ñoom la war a àndal ndax ñépp bokkuñu fu ñu jëm waaye ku bëgg ànd ak ñëpp day mujj doo jëm fenn ndax ñëpp demuñu am na ñoo xam ne fa suñu yéenee dem waajuñu boo fasee yéene ne da ngay xaar ba ñuy dem nga dem yow da ngay tardé fi la lépp di bàyyi moo tax da ngay dogu nag da ngay dogu dogu jéem a tànn ñi nga xam ne ñoo ne ca yoon wa tey dem nga waajal yoon wa nag te dem ànd ak ñoom ñi demul nag dañuy yàq sa digganteeg ñay dem dañu yàq sa digganteeg gaa yu baax yi yàq sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala bu boobaa loolu nag du la tardeel da ngay jéem a am jikko yu kawe ndax jikko tax na borom bi subhaanahu wa taala waxee nu ne waaw cofeel gi may wax nii jikko daa bokk ci li koy suuxat moo tax mu xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom suñ borom ba sippali ko ci alxuraan ne ko wa innaka la ala na azim yow day jikko ju rafet jikko ju réy nga am waaw jikko ju rëy yaa baaxi jikko yaa màgg ay jikko tagg yi yàlla tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam doo ci gisati tagg wu ko gën a rëy ñi ma bind yaa ma ci gënal waaye sa ngëneel gi li tax nga gën mooy sa jikko yu baax yi sa jikko yu baax yi ay jikko daal moom nga baax le lool lool kon yow mi bëgg a baax da ngay tàmbulee xool say jikko waaye dangay ngay tàmbulee def yittey jéem a roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la borom bi subhaanahu wa taala di waxe moo tax bi mu ko gisee xool ko ba ne ko sa jikko yi daa baax mu ne ñu roy leen ko ci jikkoom yi roy leen ko ndax yonent bi model la waaye waaye model na kenn du ko def ci poos toog wala ñu bañ la koo jàngal ba nga xam ko dangay ngay fexee xamal sa njaboot kenn mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye dañ koo war a xamle ci àdduna bi yépp xam ko ci pénc mi xam ko ci doxalin yi dana tax nga xam ko lu jiitu mu naan yàllaa ma yónni nga xamante ne muhammadul amiin la woon jamono ja muy doon muhammad ñu tudde ko noonu te muy ku baax ku sérieux ku yiw jamono ja muy jub lool wóor lool ba luñ ko dénk mu téye ko ba delloo ko seeni borom kenn mësu koo gis ci caaxaan bañ koy wooyee al amiin jamono jam naan yàllaa ma yónni borom bi xool ko ba sippali ko ne ko fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalidal qalb lan faddu min xawlika waaw yow de yërmande nga ji nga jëlee ci man moo tax nga mën a yilif aw nit xam nga yërmande tur la ci turi yàlla yi yërmande tur la ci turi yàlla yi arrahman arrahim yàllaa ko moom aw meloom la waaye nag nit day bëgg yàlla ba yàlla sóob ko jikkoom yooyu sóob ko jikkoom yooyu nga xam ne day yàllaa ci fànn googu ku yërmande rek nuru nga yàlla ku am yërmande rek nuru nga yàlla ci jikkoom yooyu donte borom bi kenn du ko nuru bañ ne da ngaa moom kenn du ko jaawale kenn ndax moom la waaye nag bu bëggee jaamam day doon lépp jaam bi mhm. boo góorgóorloo ba yàlla bëgg la sama borom day doon sa lépp day doon sa loxo yi doon sa tànk yi doon sa jëf ji bu ko defee nga yàlla te yàlla daa bëri yërmande moo tax mu mën a jëllale bañu fi ndax bis bu set ñu def ko loo xamante ne mën nañoo alak ci saasi te du ko def te yow boo nuroogut yàlla boo meree boo yoroon contact bi tukkal àdduna bës nga ko bu yàgg am na ñoo xam ne bu doon lii tukkal àdduna daa nekk seen loxo àdduna tukki na bu yàgg ndax mere nit dong jaral na leen dem ci sëriñ ne ko njabaral ma diw ba mu dof njabaral ma diw ba mu ñàkk palaasam bi njabaral ma ko ba bu mu fi tekkee njabaral ma ko ba feebara mbir bu wér njabaral ma ko ba bu mu am doom njabaral ma ko ba doomam ji du tekki njabaral ma ko ba na faatu am na sax ñu àgg ci naan bu dee sax mën nga koo rey reyal allahu akbar waaw ba yàlla bind jaam tàgguwu la teraanga yi mu ko defal jaar ci loxoom ngeen a ami réeroo waaye mën ngaa àgg ci boo ko mënee rey sax reyal am ku ne lawet jéem ne ko mën naa sax lu raw loolu ndax moom luñ koy weexal quinze mille francs buñ koy jox wala vingt mille ñun yëguñu li xew yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jikko yu màgg borom bi nee nañu model la bu ngeen ko xamee te roy ko te jaar fam jaar da ngeen am yàlla da ngeen am yonent bi te da am dund gu neex moom lay wax naan laxad kaana fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yowma al axira wa dakara allaha kachira waaw nee na royukaay bu rafet rafet la moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam modèle la bu rafet ñeel leen ñeel leen ku yaakaar yàlla mooy ku yaakaar ne da nga dajeeg yàlla gëm ne alaxira am na eh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngay roy waaw yàlla ne dama ko yónni ngir mu ñëw yar leen ngir mu ñëw yar leen léegi ñun nan la ñuy yaroo kon ci njàngalem yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy dañuy jàng dundam gi dañ koy jéem a xereñe dañ koy jéem a topp huwa alladi baatha fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi mubin borom bi nee na huwa alladi baatha fi l ummiyina rasula yàlla nee na maa leen yónni maa leen yónnee bi maa leen ko yónnee maa leen ko yónnee mu ñëw ngir jàngal leen mu ñëw ngir yar leen mu ñëw ngir yar leen waaw yar leen ba ngeen nite ba ngeen nite la ngeen réere woon démb mu indil leen ko ngeen jub moo tax alxuraan suñ borom woo nañu ba tàyyi ci ñu jëm ci jikko yu rafet te bu ñu rafetee ay jikko dañuy bokk ci pénc yi nga xam ne jàmm fi am ndax dañuy yéeneente jàmm te saa su nekk dañuy dox ci lii tax ñu am jàmm boo demee ci alxuraanul karim ay yi nga xamante ne day woote ci jikko yu rafet bari na lool boo demee ca suratu Ali Imran borom baa ngi wax naan gaawantu leen jëm ci lii tax ngeen am njëggalu borom bi waaw mooy jikko yu baax mooy tax ngeen am sutura mooy tax ngeen am njëggalu borom bi tuub leen gaaw leen defe lii tax sama borom kontaan ci yéen bu leen yàlla jéggalee ngeen am jikko yu baax da ngeen di am aljanna aljanna ja nga xam ne ñi ko yàlla prépareel mooy ñi ko ragal ñi ragal yàlla ñi te ñi ragal yàlla ñooy moom mooy ñooy borom jikko yu baax yi borom jikko yu rafet yi ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy muttaqiina yi ñooy ñi ragal borom bi subhaanahu wa taala wa saaricu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin borom bi nee na ñi ma prépareel aljanna ja nga xam ne yaatuwaay baa ëpp asamaan ak suuf mooy ñi ma ragal ñooñu nag ñooy borom jikko yu baax yi li topp ci aaya jee la koy won ndax bi mu ne ñi ma ko préparel mooy borom jikko mooy ñi ma ragal dafa wax ne mooy ñi nga xam ne dañuy dépenser seen alal dañuy dépenser seen alal fi sarra'i wa dharra'i waaw ci jamono joo xamante ne jamonoy péex la ak jamonoy xat-xat jamono yi économie bi doxee ak jamono bi crise amee jamono yiñ kontaane ak jamono yiñ meree jamono yi jamono neexe ci ñoom ak yim naqaree ci ñoom a yem ci ñoom ay joxekat lañ waaw dañuy dépenser seen alal dañuy dépenser seen alal ndekete tabe ci jikko yu baax yi la bokk waaye ci jikko yi ñu ragal yàlla ji ci jiitu te borom bi tudde ko mooy tabe tabe ab sang dëgg ko man sang dëgg ko man waaw sëriñ Abdul Ahad daan na wax ne eh, maanaam maanaam joxe ki koy def bu mu bu mu ko waaj du diisoo akum xelam ndax bu ko defee xel mi yebbi ko waaw boo diisoog sama xel xel mi yebbi la dalay fomm moom kay ba bëxëriñu rek ca ndoorte lu njëkk la nga jël la nga am joxe te yàlla tax dem toog bàyyi kàmb borom bi suulal la kàmb gi ci lu yàggut waaye war a joxe naan kor kor kor kor kor kor kot kot kot kot kot kot kot rek waaw ba mujj far ko bàyyi rek nga jëm waaw demal ba suba rek xam naa bu subaa ba dëkk bi gën a neex rek ma joxe ndax bénéfice bi gën a yokk bu ko defee danaa mën a dimbali diw waaw diw de waxoon na ma ndimbalam waaye bay bon mu bàyyi ba weer bi dee rek te kat li nga ko war a jox mi ngi nii nga tiim waaye li nga ciy xaar ba weer wi dee mooy ma génnee sama dépense yi ba xam ñaata laay dese waaw kot kot kot kot kot kot ba far nay te doo ko yëg waaw yàlla boo ko waxtaanee nag yàlla boo ko waxtaanee nit nag wax ko ca kaw boo muytu da nga koy far bàyyi ndax ku nay ku ne dana la yebbi moom laa yow gars yi da nga leen a mën a kii mbokki léegi de boo leen toppee da ngay joxe te doo ci am ngërëm doo ci am dara waaye <laughs> wutoo ci ngërëmul nit di looy doyee ngërëmul nit boo joxee waa ji mu takk rajo yi wax ko ñëpp te yàlla nangulu la ko amul njariñ di li am solo kay mooy nga def ko te yàlla tax te dem toog waaw te dem toog yow bàyyi sa bopp ak borom bi subhaanahu wa taala te xam ne joxe kat ya am nañ wàccuwaay fa moom waaye jikko ñaareel bi mu ne wal kaasimiina al xayza ñi nga xam ne da dañuy dañuy nëbb seenu mer ñi nga xam ne dañuy nëbb seenu mer ndeke daa bokk ci jikkoy sang ki nga xamante ne bu meree day nëbb am meram allahu bu meree day nëbb am meram waaw mer mënta ñàkk waaye day xeexakum meram waaw kilifa kilifa dëgg dëgg dëgg noonu lay mel waaw du du du toj kaas yi fallaxe toj télé bi wax nit aw tojaange aw njombe woo xamante ne dootu ko fàtteeti ci dundam après dix minutes après nga naan ndox daan ne damaa meroon ñu ne eh, moom daa meroon rek nañ ko comprendre loolu jikkoy ku ku matut kilifa la jikkoy ku nekku leader ngeen baal ma waaye kilifa dëgg bu meree day moomu meram waaw day moomu meram ki mer dëgg jàmbaar dëgg mooy ki nga xamante ne day mën a téye boppam bu meree koo koy jàmbaar waaw waaye jàmbaar dëgg du ku la saaga nga fayu ca saasa ku la ku la wokk nga xuri ko gëjj ko màtt ko euh, weex nga nag mën nañ yii diw de moom laalaake la waaw ndax ma ngay défendre boppam waaye nag jikko yi nga xamante ne mooy jikko jikkoy al muttaqin te borom bi subhaanahu wa taala tagg leen gannaaw ba mu tabee mën a joxe ci jamono ju neex ak ju naqari mooy bu meree mën a nëbbu meram waaw boo meree neel cel ndeysaan téye sa mer bu fekkee dalaa fekkoon di wax noppil ndax boo continuer di wax dangay wax lu ëpp de te léegi néew na ngay gis nit ku mer am ku ñëw teg ko loxo mu noppi te loolu dafa baax dafa baax boo meree dañoo war ne nañu wooyu diw nañu wooyu diw waaw moom kat ruus na ko ruus na ko ñu dem wooyi Seex Fadel Ka mu ñëw teg la loxo nga noppi nga noppi la nga jàppoon nga bàyyi ko yëngal sa bopp ne ko diw mi rek laa ruus xaw ma nu ma koy def gis nga boo demee ba sa mer mi jeex ngay door a kontaan ci bàyyi gi nga bàyyi woon xel kenn ba tax lu bari waxoo ko woon ñaata nit ñooy wër di laaj naan dama nañ ma baal damaa fase sama soxna ndax fase moomu tàbbi na ndax ñaareelu fase la ndax ñetteelu fase la te bañ koy def mer dong leen fa yóbbu mer ba noppi te amuñu ku ñu rus amuñu ku naan la sa Euh, ba ñu ne ca dëkk ba euh, nit ku mer ab xaritam ñëw koo xam ne ñoom ñaar ay àndandoo lañ waaye day mel ni bu agsee mooy baayam eh noppil bëggatumaa dégg sa baat waa ji danaan pat aca toogal mu toog mu jël kee yóbbu fee di aanaase dangay ngay dangay waaru ci yàlla yow mi xamagut lan mooy lan mooy aada jooju ak joxante cër googu nga xamante ne moom la ñu joxante cër waaw waaye mer di buur ak a dal kenn mënulaa téye ba nga noppi bu ko defee ngay gën a ràkkaaju hmm? séddoo kenn benn cër kenn jéemut a euh, demandé benn cër itam nga xam ne ñun ñi la war a arrangé ñoo naan kaa am na kaa am na yii diw ak diw ñoo doon laale eh, loolu kaa la de de commencé di nettali demee ko ca gaaram place ya bu ko defee liy xew di xew ñi ko war a faj kenn du ko faj ku mer da ngay mën a téye sa bopp da ngay mën a téye sa bopp waaw bu dee kilifa nga nga mer sa njaboot mer jamono jooju bul génnee sa mer ci kanamam ndax ñaari dof ngeen ñaari ñu mer jàkkaarloo di wax ay dof lañ kenn nitewu ci da ngay bàyyi ba meram jeex wala sa mer jeex nga xam ne booy wax ak moom dana la déglu wala yow it buy wax ak yow danga ko déglu bu ko defee nga mën nga mën a doxal wal kaadimina al gayza wal aafina ani naas ñetteelu jikko bi mooy jàmmal nit ñi waaw jàmmal nit ñi di jëllale waaye nag amal nit ñi jàmm waaw jikko jikko jikko yi ñu jël ngir mën a am njëggalu borom bi subhaanahu wa taala da caa bokk nag am jàmm waaw di jàmmal nit ñi wal aafina anin naasi waaw di jàmmal nit ñi wala nga ne di jëllale di jëllale maanaam ñi def la lu garaaw nga mel ne yëgoo ko wala nga mel ne defuñ la ko doo wax jëm ca doo ci rëni da ngay mel ne bàyyiwoo ci xel waaw da ngay mel ne bàyyiwoo ci xel jëllale wax jooju doo ko tontu daaw mel ne yëgoo ko te fekk yëg nga ko waaye yooyu yëpp rek bëgg a am jàmm mooy tax waaye kuy def loo dégg tontu ko ci jamono jii lu luñ la ne diw nee na nangam nga takk mu jaral la takkub xare doo noppalu sa dund gépp ci wuti noon nga koy def e, sa dund gépp ci defante nga koy def dangay ngay jëllale kay yow tey dem waaw da ngay jëllale tey dem laggal te wéy waaw bu la détails yi tardeel da lay tardeel ndax ñi manqué euh, te matadi te am jukko yu baaxut ñoom langaam bi sa mbub mi lañuy def ba doo dem mooy kàddu yi ñu lay dóor fekk danga leen a raw rek wal aafina an innaasi wallahu yuhibbul muhsinin yàlla nee na moom day bëgg na ñuy rafetal maa ngi doon wax léegi ci cofeel xoolal borom bi subhaanahu wa taala nee na ñi nga xam ne dañuy rafetal ñi nga xam ne dañuy rafetal yàlla nee na bëgg na leen waaw bëgg na leen yàlla nañ ci bokk mooy di wax wax ju rafet góor góorlul ba mbokk gi bu la ci kenn dàq wax wax ju rafet mbokk gi del wax wax ju rafet waaw bu ñëwee ni diw de la mu wax diw man xaw ma nu mu ko mën a waxee nga ne damaa yaakaar ne kay yéen a déggul la mu bëgg a wax waaye moom kay xanaa loolu du ay waxam waaw kay wax wax ju rafet wax ju rafet wax ju ñaaw boo ko déggee teg ci sa tànk bul ko jottali ña koy jottali bu mu koo ci yow waaye yu audio rek ak ne ci biir groupe bi lu ñu wax nga ne yéen a déggul fi muy waxee wallahu yuhibbul muhsinin borom bi nee na daa bëgg ñi nga xam ne dañuy rafetal yàlla nañ ci bokk yal nañu bokk ci ñi nga xam ne dañuy rafetal suñuy wax rafetal suñuy jëf bu ko defee ñu bokk ci ñi nga xam ne soppee yàlla lañ seytaane moom day fexe ba doo bokk ci ñuy rafetal lim ciy njëkk a jéem laa roof mooy ñaaw njortu waaw bu njortu baaxut euh, euh, jëf ji du mën a baax ndax euh, da ngay dox ci njortu ne ci ci njortu lu baaxut waaw ci njort yu baaxut te jëf ju baaxut day tax njort du baax arab yi dañuy wax ne nit ki bu ay jëfam ñaawee njortam day ñaaw wallahu yuhibbul muhsinin borom bi nee daa bëgg ñi nga xam ne dañuy rafetal yàlla nañ ci bokk kon cofeel gi ñu am diggante eh, suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa taala te war koo sàmm da caa bokk ci liy tax ñu mën koo sàmm ñu am jikko yu rafet ñu am jikko yu rafet jikko yu rafet yooyu alladina yunfiquuna fi wa lsarraai waddaraai walkaadimina alxayda walcaafina an innaasi wallahu yuhibu almuhsinin yal nañ ci bokk waaw yal nañ bokk ci almuhsinin ñi nga xamante ne soppee borom bi lañ wax naa la ne cofeel lu rëy la cofeel lu rëy la waaw buum la goo xamante ne bët du ci tegu waaye moo war a gën a dëgër moo war a gën a dëgër ci àdduna moo war a gën a dëgër ci àdduna borom bi subxanahu wa ta'ala ci aaya yi nga xam ne day woote ci ñu am jikko ju rafet boo delloo ci alquranul karim ci surat al baqara ma ngay fàttali kóllëre gum fasante woon ak banu israil te ba léegi mu fasante ko ak ñun ndax lu baax la yàlla di leen waxoon ni leen laa taabuduuna illa allaha bu leen jaamu ku dut man allahu akbar ndeki jikko yu rafet yi daa bokk ca la ca war a jiitu mooy bañ a bokkaale yàlla mhm. bañ am yàlla yu bari wéetal yàlla moom képp kese dong di ko jaamu waaye wabil waalidayni ixsaana ngeen rafetal jëme ci seeni wayjur yàlla dañ koy jaamu wayjur dañuy rafetal jëm ci moom waajur moom kenn du ko jaamu waaye bu yàlla jàllee moo ci topp waaye nag yemuñu ay ran bokkuñu foo leen di dugal yàlla buur la nga di jaamam wayjur nag moom sang la ngay rafetal jëm ci moom rafetal jëm ci moom doo ko sàllawlu doo ko sàllawlu boo koy woo doo jaar ci turam direct mooy sàllawlu da nga cay boole baay wala papa wala sëriñ bi waaw wala sëriñ bi jaar ak moom fa nga war a jaar moom boo koy nuyu doo ko jox benn loxo koo sukkal nag ki àdduna wala nga raamal ko wala nga àgg ci suuf wala nga déggal ko déggal waajur ko gën a doon farata ci yow ku mën a doon nag déggal waajur moo gën a doon farata ci yow euh, koo jox sa alal wala nga dem fa euh, dox ci ay ndigalam ni ko maa ngi bàyyi say tere déggal waajur ak jox sa waajur sa alal moo jiitu waaw ñëw jox sa waajur cinq cent euh, dem ci barab joxe fa joxe fa cent mille francs daane waajur yi moom soxlawu ko fexe ba waajur ay soxlaam moo xam joxe xaalis la moo xam kàddu gu baax la ba mu féete kaw mooy li gën lépp mooy li gën lépp moo tax koy natt ak mbaaxam tey waajuram di dund xoolal relation bi mu am ak ay waajuram xoolal relation bi mu am ak way juróom waaye bul xool rek ñu koy jaabaa jongeek ñu koy taggee ci média yeeg yi nga xam ne moo ci aju ndax loolu mën naa gàtt yal na ñu yàlla sàmm yal ñu boole ci way rafetal yi yal nañu boole ci ñi nga xam ne dañuy sàmm seen jikko boole ñu ci ñi nga xamante ne dañuy rafetal seenu doxalin seen digganteeg seen borom seen digganteeg nit ñi ñoo ngi leen di jéggluwaat bu baax a baax te di leen baalu àq di leen baal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal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 wa rahmatullahi taala wa barakaatu